yes salaamaaleykum salaamaaleykum Galsen salaamaaleykum àdduna wërngal këpp fu waaye ni mënti nekk ñu ngi lay siyaar di la jox sa wàcce waay di leen wax ne dellu si neen si seen beneen numéro hip hop education comme dap du ma sa changé ak kan commando gënu maay from Africa nité waxoon naa leen ko fii xewee si nité TV hip hop education di émission hip hop. ak hip hop reggae nee leen du ma yomb bu fekkee hip hopeur nga wala reggae man préparel sa invitation dina teew wala nga inscrit lu gaaw gaaw gaaw gaaw si émission yi nga xamante ne mu ngi waaj a ñëw di hip hop education bi nee naa leen du yomb du yomb dañuy andi ay affaires yu gën a nice gën a yëgal baar bi yow mi nga xamante ne yaa ngi génn sa album préparel dina la invité def sa promotion album yow mi war a génn sa mixtape sa sa sa max loo mënti génne muy bi jàppale la ba affaire yi gars yi mën ko dégg nicement ah noonu lay demee bu fekkee nag yaa ngi préparé sa programme moo xam euh, concert la moo xam euh, euh, soirée hip hop ah lépp lu mënti doon da ngay jaar si hip hop education mu def promotion bi noonu lay demee di lay wax ne am na fi yeneen i bagage aussi yu am mooy que ne dinañ fi teg ay cypher hip hop fii nii si studio Nita TV noonu lay demee préparé nga inscrit ak seen hip hop education nee naa leen du mës a yomb hip hop bi day gën a kawe si kaw si kaw ñu aj baar bi préparé nga inscrit Facebook bi Instagram wala group WhatsApp bi wala xam nga si YouTube bi di nga ko am live and direct hip hop education ah commando gën a from africanité bomba claat gars yi am out man